taale nga. lan la non non dara. dañuy dal dañuy dal mi muy waxal di nga sosal la war a bàyyi. mbër mbër coow jiwu la eh ñoo fi ma eh. mbër ñoo fa eh. saa eh. fii laa toog du ma buuse non mag day wax dëgg kii nu mu mën ta tas caare yi kii. yow naa fekk nga yow yow naa fekk nga. du ma fi buuse. ko teg non seen yoon koy daan matul matul une minute ñoo ñëw bu doole Nandi Fall ñoo ko dàq bëre. ñu gis Nandi nee na combat bi ko sax lu daan nga foog amul waaw loolu sant yàlla xam nga ay lamb jëluma ko pour daan loolu du ay débat quoi loolu du ay wax ju loolu wax bari la quoi lamb gën ma koy jël pour daanu lamb gën jël ko pour daan lamb ko jël pour daana tax mais en tout cas maa ngi sant daal sëñ Mor Fall Pikine xam nga di woo borom daaru si combat bi borom daaru di woo Serigne Mbacke si combat bi ak ñi may di woo sam papa Mame si combat bu ba di woo képp koo xam ne yaa ngi Papa Dia dama naan dama bëgg nga génne ko bu baax man sama papa Mame Boye aw ma ku ma aw ma ku ëpp sama làmb xaalis bu bari la si def maa ngi waat si combat bu baax a baax parce que combat bi nii xam na dama war a mobiliser wu bu baax a baax baax a baax parce que promoteur daf ñuy xaar si loolu. Nandi Fall suy ñëw kalaandoo lay indaale ak ay bagages am stade bi nga bëgg a diw ba mu fees dell. stade daf normal. c'est normal quoi xam nga boo demee toog xam nga ñenn ñi di la gonfale c'est normal. mais yokkaat na doole de. waaw mais déggoo lu ma la man affaire bi ay yokkoog ay ngande yooyu yëpp amul sens xam nga la moo am sens bu arbitre bi sifflé. nee na ma écurie Walo googu la doore nee na foofu la daan takk ngeen mu di contact. waa garaaw loolu yëpp du problème su neexee sax mu ñëw foofu instant yi su neexee na ñëw. loolu du problème. bu baax a baax bu baax a baax a baax bëgguma wax quoi que bu ma ñëwee dañ maa yeb te man amatuma lu ma war a wax lu dul sant gërëm ñi may jàppale rek di sant faal mi bu baax a baax di woo borom daaru si combat bi borom daaru sëñ Bas Faye maa leen woo ñoom ñëpp si combat bi. oustaz maa leen di woo si combat bu baax parce que combat bi combat bi ma soxla la suma carrière en tout cas dinañ ko def si yar ak teggin ak tey képp kuy xaar Papa si ay caaxaan wala nga woy xaar si combat mi weesu yaa ngi nax sa boob Nandi Fall si kàttanu yàlla ak mbaaxam du ay làmb ay xale ay mag Nandi Fall man mageewu ma dara pour mu leer si moom moom mageewu ma dara li mu bëgg laa bëgg. waxuma ay muy taxaw di ma xaar na ñëw ñu jàppante ñu bëre man ak moom làmb ji jeex ku nekk ñibbi suñ ko defee duñ yàgg si géew bi ay ñoo ay ay may mag laa damay taxaw di ma xaar amul lool si làmb ji de. Amet nuyu naa la. waaw mais maa ngi lay ziare baay ci sant nan bu baax kay. tey lan mooy sa teewaay. waaw tey sunu teewaay Sambay moo tëgg. vraiment mu nekk uh, sunu xarit mu nekk dëkkandoo caaray moo tax ñu teew vraiment ak bas mi nga xamante ni tey moo doon bëre ñàkk ñoo ngi koy wax di courage quoi. mais tey lan moo tax nga songu Lirou Diane attaqué ko lan la. non xam nga ñun amuñu lu dul caare yi ñun drapeau caare yi yaa may ñun bëgguñu ku ñëw di yàqa suñu dëkk te moom ni mu waxee dafa jógoo dafa jóg pour pour tas caare yi. ah la ko tas parce que dafa wax ay wax yu ñaaw di ko wax Xaadim Njaay te loolu c'est pas normal yaa may dégg lii combat la combat Reug Reug Sa day jàll. yaa may dégg mais na bu dee jàll mais na rafet nay wax wax ju rafet nga mag da ngay wax wax ju rafet. wax ju xamante ne yaa may dégg du yàq mais moom mag muy yàq la ko boobu ba léegi ñoo ngi déglu ay mbalagam xam nga Xaadim Njaay nee na sama kaf ak yow jeex na kon jeex na ko a est-ce que tamit ñu séq rek. non non am na ay wax yu xamante ne du mbalag. Njaay njëkkee de wax na de. dama am na ay wax yu xamante ne baaxul. yaa may dégg si ñaari camp yëpp muy Xaadim Njaay muy Lirou Diane am na wax yu xamante ne mag du ko wax. mais lan moo la métti ba nga attaqué ko tey ba ko door ko a déglu waxam waxu naafeq la nit du naafeq du jaxase quoi foofu laa waxee. mer nga de. non am na man man am na am xamante ni du ma see ànd quoi nit du naa féq te Lirou Diane naa féq la. ah mais Khadim Ndiaye tamit daa bon la voilà. Khadim Ndiaye tamit daa wax. en tout cas daal li ma déglu liiru Diane wax kat naa féq la mais gars yi nañ ñëw nu bëre quoi. naan Alioune Seye na ñëw nu bëre. yow bi nga bëgg a indiwaat. Guédiawaye Seye 2 na ñëw nu bëre tapet bu bon la. Ahmed mer nga de. mer du question mer na ñëw nu bëre toog bi amul amul sens. bi amul chance na ñëw nu bëre waaw. nee na gisa gisa mu défendre rakam. parce que xamul na xaarim dafa yor ay doom yu mag. dama ne moom na jox xaarim cër xaarim jox ko cër jeex na ay xale la jiite. am na loo xam ne jaaruwul moom muy liiru muy xaarim war ta taxaw ne xaarim day ay dañu pour jaay Reug Reug na xam bu la ñoom dañoo yëngu lu ñoom dañ xam loolu. mais yàlla dafa dogal mu ñàkk mais ñoo ngi koy encouragé ndax bi mooy premier défaite daal. tey diggante caaro yi ak ak géejawaay derby bi nan nga ko gis. waaw li gannaaw liiru moo war a xool wax rek ndax am na yu bëri yoo xamante ni laa ma jaru ko dañoo ma day jeex am na yeneen wax yoo xam boo ko wax mën nañ mën nañ ndaw si dégg-dégg mais ñun fi ñu dëkk dafay rëy am na yoo xam jaruma koy wax xam nga Xaadim Njaay garaaw bu baax la garaaw bu bien la Sa Thiès moom Xaadim Njaay papaam la sax mën nañoo wax loolu mais na xool li muy wax Xaadim Njaay ndax Sa Thiès waaw ndax Xaadim Njaay ay doom yu mag say comprendre te nit ku ne nit sa nawle la Sa Thiès mi waxee nii barki Alxuraan ci moom lay métti nit ku réew la nag Sa Thiès mais dina xam ne ñoo ko gën a réew foofu si biir géew bi mais nekkul réew da ngay wax ak ni boo ba léegi moom mooy wax rek Reug Reug mooy entraîné na entraînement jëmatal combat moo gën a tontu ay ay paak ay mag gànnaar. non non non non Lirou ñoom dañuy waxante mais yéen daa mel ni wax bi waa Thiaroye yéen da leen a métti. di nga wax ba war a xam ne li papaam la waru ko sax tontu mais waxi mi wax Khadim Ndiaye moo réew si yóbbam. Sa Thiès barki Alxuraanu kan ku ma la nag. réewam doon googu si biir géew bi lañ ko koy wax te barke alxuraan daan. mais Thiaroye daa mel da ngeen a mere Guédiawaye lan la. non du question mere Guédiawaye mais dafa am yenn wax yoo dafa ñaaw si dégg-dégg ak gis-gis làmb la day jeex na ñëpp joxe na ñëpp joxante a rek làmb avancé mais ba ngay wax ni si loo xamante ni ay waxi respect la quoi bu ñu tuddee Xaadim Njaay naan nga koy méngale ay xaj. loolu mais xaari ma wax loolu. mais am na si droit xaari moom bu nga neexee ne Sa Thiès bu daanee rëdd mu lekk xaj loolu xaari moom la concerné loolu léegi Sa Thiès loolu la mu si yoonam donc na xool rek li nga xamante ne mooy loolu euh, adversaire am mais di tontu ay mag ak ay paa. mais daa mel ni caaro yi bis bi da leen a jaral. bu baax bu baax na dañoo jaral bu baax te barki Seydina Mohamed laa la waatal lii métti si Sa Thiès lay jógee. waaye li ngay wax foo ko teg à suivre. caat am ma ma koy wax du ma moom fi mu toll nii. yaa ko raw. non du ma lu dul fi mu toll nii. bilaay walaay. mais nga teg sa bët daa dis. non foofu baax mooy baax baax bi. arrangé na bu baax a baax sax. mais ngeen jëm ci journée bu mag seen combat am Bombardier coow li bari lool nu Tapha war a ñëwee. waaw ñëw ñëw comme ni ñu doon ñëwee ñu ko raw rek. waaw la ñuy ñëwee di wax bawul bawul yëpp nañu waaj te xam ne seen bés la bésu bawul bawul yi la. di ñaan yàlla ànd ak ñun rek yàlla muy maye ndam yàlla nañu yàlla buur yàlla. may day bëre si wala day xeex si waat. lépp la ñuy andi ñun moom xam nga ne côté bépp la ñuy pare lu mu laaj rek ngir am ndam dinañ ko def ci kàttanu yàlla. xam fan la toll. xam nañ ko bu baax xam nañ fa ñu mën a yóbbu it waaw moo tax fooy wuñu ko ko ñu ngi ciy liggéey lu baax a baax a baax. Zal Bambey yow sa bis bi kañ la. sama bis bi amagul date man maa ngi soññu promoteur bi pour mu jàpp date. boobu ba léegi dañ laa gisagul. waaw ñu ngi fi ñuy waajal bu baax a baax di xaar. mu nga arène nationale wala nam. namu naa ko trop. samay supporters namu nañ ko. pàcc bawol bawol yëpp namu nañ ko. lan ngay wax sa adversaire. adversaire bi di ko wax lu mu waaj doyut rek. parce que ñuy pare bu baax newoon naa ko combat njaaytin bi ci laa nekk talaguma la tey combat njaaytin jàll na. esaay maa ngi ci moom. tal nga ko. tal naa ko fi mu ne ñu ngi koy waajal bu baax a baax baax di ñaanal lion yi yàlla dafa leen ndam mardi ñu qualifié ah waaw Sénégal la ñu wax Sénégal ca kanam. borom jàpp ndal borom xabaan borom ñaari daara seen gàpp borom jowaan nga joroon xëy ka dama ne borom xel kom jaaga papa Burxaan nee na dama ni mais euh, occasion bi occasion bi dañ ciy profité. dañ ciy profité. pour gërëm lamb en général. nee na pour gërëm lamb en général. parce e euh, kanji mi. nee na ndax kanji mi. produit lamb la. produit lamb la. dafa liggéey ci lamb. dafa liggéey ci lamb. ba am ci li mu war am. am ci li mu war am. créer société am. créer société di dimbale ay nawleem. di sponsoriser lamb di dimbale. nawleem. lépp loo xamante ni lépp loo xam ni. soutien la soutien la. képp koo xam ne moromam nga. képp koo xam ne moromam nga. mi ngi koy def ak yow. mi ngi nga ñii nga xam ne ñoo wax ni moo leen hospitalisé. dégg nga ñi nga xam ne moo leen hospitalisé. mu réglé ko. kii bërki dem moo Ndiaye. nee na kii bërki dem moo Ndiaye. muy mbaw taxawaay ba mu fa taxaw. taxawaay bi mu fa taxaw. loolu yëpp nag dañ ciy gërëm lamb. yëpp dañ ciy gërëm lamb. parce que lamb. parce que lamb saa yu ñu waxee violence rek la ñuy xool. violence la te lamb. te lamb. ay produits la defar ay la defar. lu mel ni ñoom Kañ ak ñoom Aziz Ndiaye. ak ñoom Sam Mbaye jërëjëf. léegi nag Sam ñaari baat laa lay wax damay jox Aziz. jox a am jom a ngi nii. ku am fulla ngi nii. koo xam ni xalale la waaye am na jom yàqul làmb ji jaxasewul benn promoteur waaye nag dafa yor pusaam di ñaw diggante promoteurs yi ak ñi xam ñooy ay nawlem léegi nag damay jox sam papa Ibou Ndiaye ñoxo mbaay